والصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu wax ne islam juróomi pilier ñoo ko yore mooy ginnaaw boo gëmee ne borom bi subhanahu wa taala mooy sa borom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa yonent nga taxawal julli juróom woor weeru koor joxe azaka aj màkka moo ci tege waaye aj makka ji yàlla def ci teg liman istataa ilayhi sabilan mooy ku ko mën ñun nag dinañu waxtaan ak yéen ci naka lañu koy waajalee ak bu ñu demee ba màkka lan lañ fay def ak ki nga xamantene ne aj na ba pare aj bi ba jeexit la wara am ci mom point par point dinañ ko expliquer dañuy tambalé rek ki waxu borom bi subhanahu wa taala ba'da auzu billahi min asheytani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق برمب سبحانه وتعالى دفوخ مام إبراهيم عليه السلام نكو وو نتني نيو ko woowal nit ñi mu ne ko boo leen woowee dina ñu ñëwee ci bërëb bu ne waaye dina ñëwee ak waruwaay bu ne bi borom bi subhaanahu wa taala waxee loolu Ibrahim maam Ibrahim dafa jaaxle ne sama baat bu ndaw bi su ma waxee woo ndax daañ ma dégg yàlla ne ko wooteel man maay jottali kon képp ku dem màkkatal mukarrama nanga xam ne que ne yàlla moo la woo ku waxoon la bayka ci woote maam Ibrahima boobu dinga nga teg sa tànk ci baytilaayil xaraam waaye ki dem baytilaayil xaraam dafa war a waaj ñeenti waajaay mooy war na waajal boppam spirituellement mooy mu xam farata ak sunna ya lan la fa war a def naka la koy defee balaa muy waaj pour dem màkk mu waajal boppam physiquement mooy dafa war a am kàttan parce que màkka bëri na coono bëri na foo xamante ne oto du fa dem dañ koy dox kon nit ki dem war na am kattan balaa moo dem màkk mu waajal boppam aussi financièrement parce que màkka xaalis moo fay téye nit nga am lo yor lo xamantane ding ko meuna yor ba ñibbisi do loru waye do lor ña nga nekkal mu dess ben waajaay muy waajal sa bop moralement moralement parce que mak ay nit ñu bari ño fay ñew ci bërepp yu wuté bokko len fo len yaro bokkoo gis-gis bokkoo leen sax euh, euh, dundin waaye yéen a bokk benn objectif mooy da ngeen ñëw wut ci yàlla te borom bi subhanahu wa wax na rek baada auzu billahi min asheytaani rajim ci yóbbal bi nga xamante ne moom la nit ki war a wut comme yóbbal mu ne watazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa mu ne boo leen di ñëw di ma gane si war a bokk ci duyuufu rahmaan yi na ngeen wut yóbbal waaye yóbbal bi ma gën a soxla man borom bi subhanahu wa taala mooy yóbbalu ragal yàlla yóbbalu ragal yàlla moom la yàlla soxla ca baytilaayil xaraam ñeenti yóbbal yooyu bu ko nit wutee ba pare waaj fas yéene dem màkka dem defi juróomeelu ponkam muy aj jullit yu baree baree bari ci àdduna bi dañuy njëkkee madinatul munawwara ndax teggiin gu ñu am ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa dem ziyaare ko buñu yeggé medinatul Munawwara tek seeni bagage ci sen hôtel jubal dem ci rawdu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ziar ko ñaanal ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huwa miftah kullu baabin yàlla moko fonk mu sant ñu ñun ñep pour ñu fonk ko ndax borom bi subhanahu wa taala sant nañu ñu woor te moom woorul sant nañu ñuy julli te julliwul sant nañu ñu joxe azaka te defu ko sant nañu sax dem màkka te moom defu ko waaye moom ci boppam dafa julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman loolu dañ fay déggee rek nekk salaatu ala nabi farata la kon jaar gi nit ñi di jaar medinatul munawwara wajib la ndax yalla mo fonk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam sant ñuy fonk ko te damay wax ne rek aduna bi rek so bëggee dara ci benn soxna nga fekk doomam di joy mu toog moom mu ngi liggéey ma ngay togg lamay togg boo ci bëggee ñam il faut nga jël doom ji nax ko boo ko naxalee doom ji bu pare ci la muy togg yow lay njëkk a may yàlla dafa fonk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu gëm am yaqin ne ku dem ziyaare ji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare soog a dem aji yàlla dina nangu sa aji ndax yàlla du delloo mukk ñaan joo danga ko ubbe salatu ala nabi tëjee ko yalla du ko dello. donc bu ñu yeggee ci raw du sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wa sallam dinañ ko ziar ñaanal ko daal di dem ziaré ay sahabaam buñ fa joggé daal di wat suñu hôtel pour jema def kullu ziar kullu ziar bi dinañu dem baqiya fi nga xamante ne fa la soxna yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yi toog tëdd dinañu dem itam masjidul Quba masjidul Quba mooy jàkka ji nga xamante ne moo njëkk taxaw ci islam daañu dem masjidul qiblatayni masjidul qiblatayni jàkka joo xamante la premier xibla bi jérusalem la woon muy israël yàlla moo xëy ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam wëlbatil xibla bi nga jub jublu baytilaayil xaraam boobu jàkk rek moo am ñaari xibla moo tax ñu tuddee ko masjidul xibla tey buñ fa demee dinañ fa julli ñaari rakk buñ fa jógee dinañ dem masjidul xubaa masjidul xubaa mooy jàkk ji njëkk a taxaw ci islaam foofa tamit dinañ fa julli ñaari ràkk ñu jógee fa daal di dem uxut uxut nag histoire bu bu yaatu la ndax uxut seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu delloo tuuti ci histoire xaswatu badr 313 la woon jullit yi yéeféer yi nekk 1000 yàlla dogal jullit yi ñoom ñoo gañe yéeféer yi xeexu uhud nag ñoom dañoo toog seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen yéeg leen fii ci montagne bi te bu leen fa wàcc ngeen toog waaye dañoo weddi ndigalam moo tax yéeféer yi wiiri ñëw rey ci ñoom ñu bari bokk na ci sayduna Hamza mi nga xam ne nijaay la ci sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa bu ñu fa jógee nag ci lañuy dellu siwaat suñu hôtel loolu yépp ziyaar la waaye tàmbaleeguñu woon ajj bu ñu dellusee suñu hôtel foofu lañuy waajee nag ñu sangu set comme ni ñu ko sante dindi lépp loo xam ne sobe la ci ñun watu daldi dagg suñuy we sangu set comme ni ñu ko islaam sante mën nga jël parfum laal ko ci sa yaram waaye bu mu laal sa armal bu woowee nga sol sa armal jógee foofu dem biiru ali ñu koy woowee zul ulayfa moom digganteem ak màkka quatre cent cinquante kilomètres la ma nga nekk ca booy génn a munawwara bu ñu yeggee biiru ali dinañ fa julli ñaari rakk rakka bu njëkk bi fatiha ak qul yaa ayyuhal rakka ñaareel bi fatiha ak qul huwallahu ahad suñu sëlmalee si la ñii nag yéene ban façon aj lañu bëgg a def parce ñetti façon aj moo am bi njëkk mooy ifraat nga xam ne sénégalais yu bari moom la ñuy gën a def ñaareel bi mooy tamato ifraat mooy bi ngay jëkkee aj soobu umra da ngay sol sa armal doo ko simmi ba bisu tabaski waaye doo ray tamit doo tuur deret tamatu na mooy bi nga xamante ne dangay jiital umra soog a waaye da ngay tuur deret am na tamit xiraan xiraan mooy da ngay boole umra ak aj ñetti façon aj yooyu moo am boo ci fas yéene def rek boo jullee ñaari ràkk yi ba pare nga ne yàlla fas yéene naa aj yàlla ma ko nangul te yombalal ma ko fas yéene naa def tamato mooy njëkkee umra yàlla ma ko nangul te yombalal ma ko fas yéene naa def xiraan yàlla ma ko nangul te yombalal ma ko mën nga ko waxee ci làkk yépp bu la neexee nga wax ko ci arab bu la neexee nga wax ko ci wolof bu la neexee nga wax ko ci français wala anglais wala pulaar yàlla dégg na lang yépp waaye innama al amalu bi niyatin wa innama li kulli imri'in ma nawa da ngay yéene ndax yéene moom moo jiitu ci lépp foofu nag fa la aj ga di tàmbalee pour yow nga commencé boo yéenee aj ba ngay def ba pare si ngay commencé labbayka allahuma labbayka لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك noonu ngay waxee labayka ngeen dugg ci bus yi jëm màkkatal mukarrama saa soo waxee ba sonn boo gëmmentoo mën nga nelaw waaye boo yeewoo na nga continuer labayka am na ay check points yoo xamante ne dañ fay taxaw di julli sax boo jullee ba pare boo yéegaatee ca bus ba nga continuer sa labayka ba ni ngay yeggee màkkatal mukarrama bu ñu yeggee màkkatal mukarrama dañuy dem suñu hôtel ñu teg suñuy bagage daal di jubal dem ca kaaba ga ki nga xamantane dafa def ifrat bu demee moom tawaful xudum lay def mooy dafay dem nuyu ji kaaba gi waaye ki def tamato moom tawaaf buy def noonu wër kaaba gi juróom-ñaari yoon julli maqaama ibrahim naan zamzam daw safa ak marwa wàññi ci karawam parce que moom dafay umra loolu umra la ci moom mais ki nga xamantane ne moom la def bu wéré kaaba gi juróom ñaari yoon julli maqama ibrahim daw safa ak marwa mom day wat hotelam, ak armalam te du simmi waye ki def tamatu bu delo otelam day simmi armalam parce que umra na ba pare bu armalam sol yére bu normal ba bis bi nga xamantane ci ñuy joggé makkatal mukarrama jëmuna yeneen jour yépp mën nga dem ci kaaba ga bu la neexé nga wër kaaba gi juróom ñaari yoon julli fa sa waxtu juróom su la waaye bis bi nga xamantane moom lañuy dem muna ki defoon tamatu day sola armalam ñu daal di dem muna mu nekk bis bi nga xamante ne mooy veyu bisu arafa suñu yeewoo jubal dem arafa arafa nag moom dafa am borom bi subhanahu wa lum ci wax dafa ne al ajju arafa nee na arafa la borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne que ne nit ku ñëw màkk yépp ci na mën nga ko bañ a def sa aj baax waaye arafa moom boo feebaree sax dañ lay yóbbu tegle ci suufu arafa ndax benn bis la ci benn lieu ci benn waxtu amul fenn ci àdduna bi foofu rek la am te borom bi subhanahu wa dafay tiim jaamam yi ñépp sol lu weex sa xel du dem ci dara lu dul àllaaxira sa xel du dem ci dara lu dul dee parce que da ngay xam ne fii mënoo fee xàmmee ki ñàkk ak ki am ñépp nangu nañu womatu nañu ne ñoom ay jaamu yàlla lañu ñépp nangu nañ ne yàlla mooy seen buur yàlla foofu dafa naan ñaan leen ma ma may leen jéggalu leen ma ma jéggal leen ci arafa googu ku nekkul màkka danga koy woor waaye ñu nekk màkka duñu woor dangay jàng alquran li nga mën ñaan li nga mën ndax benn bis la boo xamante ne yemul ak benn bis te amul fenn ci àdduna bi foofu rekk la ci arafa googu fa la ñuy yendu julli fa tisbaar wàññi ko ñaari rakk boole tisbaar ak tàkkusan julli tisbaar sëlmal julli tàkkusan daldi toog ba jant bi soo ñu jegee fa jëm musdalifa musdalifa buñ fa yeggee foofa la ñuy jullee timis timis moom duñ ko wàññi bu ñu julee timis ba pare daldi di julli géewee wàññi ko def ko ñaari ràkk daldi di for suñuy xeer yi nga xamante ne moom lañu war a yóbbu jamra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan toog ba fajar fajaru bisu tabaski moom la daan dem jamra bu yeggee jamratul aqaba moom lay sànni jamratul aqaba juróom-ñaari xeer la mooy bisu tabaski bi lañ koy sànni bu sànnee jamra dafay jubal dem màkkatal mukarama fi bisu iid bi su yeggee day tawaaf tawaaf boobu muy tawaaf moom lañuy woowee tawaaful ifaada tawaful ifada bisu tabaski lañ koy def bu tawaafee bu daan tawaaf sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam da daan tawaafee rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi alakhirati hasanatan wa qina azaba nar ربنا لا تؤذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بني تواف ci lampe bu verte bi lañuy tàmbalee bismillahi allahu akbar ñu wër kaaba gi boo dellu si waatee ci lampe bu verte bi nga kabaaraat ba muy juróom ñaari yoon nga dem julli ñaari rakka ci maqaama ibrahim ñaari rakka yooyu nee nañ fatiha ak xul yaa ayyuhal kaafiruuna lañ fay wax ak fatiha ak xul huwallahu ahad suñu paree ñu naan zam-zam daal daw safa ak marwa ñu dawee safa ak ba pare dañuy dagg ci suñu karaw tuuti daldi di dem suñu hôtel daldi di simmeeku suñu armal ku doon def ifraat sa aj bi pare nga ci li ci des mooy nga dem yeggali say jàmbar ku defoon tamato pare nga ci aj mooy li ci mooy nga yeggali sa jamra boroom ifraat bi moom din bu paree jamraam day dellu siwaat parce que dafay ñëw pour def umra ndax umraagul bu ñu changé yére ba pare dañuy delluwaat mu naa toog fa pour yeggali suñu jamra yi jamra yépp buñ ko dajalee day nekk quarante neuf pierre premier jamra bu jógee bu ñu jógee def suñu tawaaful ifaada ba pare buñu delloo jamratul euh, suxra moom la ñuy njëkk a dem buñ fa jógee ñu dem jamratul wusta mooy bi nga xam ne moo nekk ci digg bi après ñu dem jamratul aqaba moom ñetti fan lañuy yeggali suñu jamra yi suñu paree dooga delluwaat màkka aj tawaaful tawaaful bi nga xamante ne moom lañuy def euh, pour tawaaful widaa moom mooy jeexal aj bi ci ki nga xamantane ne dama tamatu la def waaye ki nga xamante ne dafa def ifraat bu jógee munaa ba dellisiwaat màkkatal mukarrama dafay sanguwaat set solaat armalam daldi waajal boppam pour dem defi umra dem jàkka yaay Aïcha mooy nekk miqaat bi julli fa ñaari rakk benn bi fatiha qul ya ayyuhal kafirun benn bi fatiha qul huwallahu ahad bu sëlmalee mu wax nekka ne fas yéene na umra yàlla yàlla ma ko nangul te yombalal ma ko bu fa jógee daal di jubal dem ci xaram ba daal di tawaafaat kaaba gi juróom-ñaari yoon julliwaat maqaama ibrahim naan zam-zam daw safaak marwa dagg tuuti ci karawam moom umraam daldi mat mu daldi delluwaat ci oteelam aj bi jeex ci ñépp ci ki def ifraat ak ki def amatu ñu waxoon ne que ne dinañ wax ci nit ki bu ajee ba pare aj ji ban jeexit la war a am ci moom ndax borom bi subhanahu wa taala aj bi dafa war a yokku sa côté spirituel dafa am defar mu la war a defar ndax aj du tourisme jaamu yàlla la jaamu yàlla googu noonu yow boo fa jógee war na nit ki bu la xoolee sax mu am yëg ne kii kat am na lu mu dolleeku ci diine am na lu mu dolleeku ci ragal yàlla moo tax ñu wax neka ne dem màkka yàlla soxla wu ci nga dem di wër kaaba gi nga dem taxaw arafa nga dem musdalifa dafa soxla ci nit ki moom gëm yàllaam gën a dolleeku moo tax ñu ne al ajjul mabruur laysa lahu jaza ilal janna aj bu ñu nangu nee na fay lu dul ajjana te ajjana nag yàlla borom bi subhanahu wa taala bu ñu demee màkka ba ñibbisi ba yëg ne raxasu nañ ci bépp bàkkaar dañoo wara tàmbaliwaat dund bu bees mooy que ne mankat simmeeku naa ci bépp bàkkaar parce que ba ngay sangu set ca Medinatul Munawwara danga war a yëg ci sa bopp ne yow kat néew buy sangu boppam nga ndax boo génnee àdduna kenn dootu la sangati noonu lañ lay jébbalee sa borom yëg yëg boobu ngay am noonu dafa war a continuer sa giiru dund mooy nga bàyyi xel ne que ne mankat lu bari wàññeeku woon na ci man man euh, koo xamante ne laa woon dama doon tooñ sax sama bokk jaamu yàlla yi léegi nag dogu naa ne dootuma tooñati kenn mankat dama doon lekk àqu jàmbur dogu naa ne dootuma lekkati àqu jàmbur man mii kat sama jaamu yàlla xawoon na sooxe dogu naa ne sama jaamu yàlla gi dinaa ko def ni mu ware jeexit googu noonu war na aj ko def ci nit ndax lu jiitu aj gi yàlla salaat julli lañu sant te dafa ne ci julli googu inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar nee na julli day tere nit ki mu def lu bon ak lu ñu sib kon julli googu noonu yow yaa ngi julli waxtu juróom ba am lu mat trente ans wala trente cinq wala sax quarante nga gis ne am na loo xamante ne mi ngi des ci yow ba tey ñu ne la kon xoolaatal sa bopp duggal ruq mën a kan bo joge nak màkka yoyu yeb mom ci màkka nga wara xolaté ne man kat lépp lu ma doon def ci lu safan simé ku na ko fi bàyyi ko fi te duma ko yobalé fuma jëm jeexit boobu la acc wara am ci nit ki boobu lay acc gi di am njëriñ parce que euh yëkkati xaalis bu bari fay ko dem ba màkkatal mukarrama te xamoo lila la yóbbu loolu moom erreur bu rëy rëy la moo tax ñuy wax mbokk jullit yi nga xamante ne ñépp ñu ngi waaj pour dem baytilay xaraam wala ñu am yéene pour dem fa ñu waajal seen bopp bu baax baax a baax a baax ndax ci waajal seen bopp googu mooy tax bu ñu jógee màkka ñu yëg ne jóge nañ màkk dina am jeexit bu rëy bu muy def ci ñoom bu ñu nekkoon ñoo xamantane ñu ñu ñu ñu seen jaamu yàlla duñ ko def ni mu waree dinañ gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla bu ñu nekkoon ñoo xamante ne seeni mbokk duñu taxaw ci seeni mbir ñu góorgóorlu taxaw ci seeni mbir jàppale leen bu ñu nekkoon ku fonkul dëkkandoo ñu gën a fonk seeni dëkkandoo ndax màkkakat du dem rek gàddu sa saak ne maa ngay dem euh, ziyaare ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme niko ko nit ñi di waxee bu ñuy dem nga xamante ne erreur la loolu da ngay dem ziyaare ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi ziyaare bi daf cee bokk ndax yonent bi mënoo am dara ci sa borom te jaaroo ci moom waaye li gën a gën a gën a gën a am solo mooy da ngay defi sa cinquième pilier de l'islam ñu xam ne que ne foofu ku fa dem itam di nga sonn loolu dama koy wax pour ñi nga xamante ne dañ naan man VIP laay demee màkk <laughs> VIP amul màkk. màkk dëkku coono la suñu maam Seydi Hadji Malick jamono muy dem màkka jamono yooyu noonu dem coon Cheikh Umarul Fuutiyu suñu maam Cheikh bi muy dem màkka dem màkka lu metti woon mhm. Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa def na ay jours yu bari ñi naan weer pour jógee Medinatul Munawwara dem màkk sonn lool ca Muna Muna dara amu fa waaye bu ñu demee ba nit ñi jàpp ne moom màkk man dama ko war a dem ci hôtel bu luxe laa war a nekk waaw hôtel cinq étoiles euh, loolu torox lu dootu fa amati dootoo am yëg-yëg nekka ne man mii kat jaam laa bu ñëw fekk ci boroomam toroxlu bi ngay toroxlu nag mooy tax nga am yëg-yëg ba nga xamante ne soo delloo ca dëkk ba nga jógee coono boobu ngay yëg képp ku sonnati di nga xam coono mooy lan ñàkk am li nga bëgg ñàkk tëdd fu nooy fi nga fi nga tàmm dina tax ñi amul fu nooy di nga comprendre li ñuy dund lan la ñàkk lekk li nga bëgg la ngay lekk sa kër yaa joxe sa dépense di leen wax defal nii defal nii waaye boo demee màkkatal mukarrama lu ñu la jox di nga ko mën a lekk parce que da nga xam ne que ne fii nii kat dama fi ñëw pour jaamu si yàlla te moment bi ngay toog di sonn di xiif dina la permettre nga xam xiif mooy lan dina la permettre nga bàyyi xel ci ñi nga xamantane bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree duñu nekk te yàlla loolu la soxla ci yow yàlla dafa soxla ci yow nga defaru màkka dang fa war a jëlee defaru may wax rek surtout suñu mbokk jigéen yi nga xamante ne màkka moom buñ koy wàcc coono ba ñuy teg seen bopp yàlla sax tegu leen dañu dem pour jaamu yàlla waaye man kat am naa billet waaye mënumaa dem ndax su ma ñëwee lan laay ganale mais yàlla santu la la ganale yow nit ñi ñoo la war a ñëw ganale mooy nit ñi ñoo la ñëw war a ñëw wut si yow ñaan parce que yow da nga joggé ci baytilaay haram fi nga xamné hmm. yalla moko tanal bopam ni fi sama neeg la yamalé wu moko ak lenn waye nga né dédé damay gënalé parce que dama am goro dama am ay njëkkee kon sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen di ñaax bu baax nekk ne aj daal farata boo xamante ne benn yoon la ci sa dundu la ca des yépp ay nawaafil la ku ko def boo ñëwee war nga am soppeeku bu baax a baax a baax a baax ci sa lépp loolu laa amoon lu may wax ci aj maa ngi sant ñépp di gërëm ñépp ci déglu bi wasalaamu aleykum wa wa barakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. taala wabarakatuh. soxna Seyda Fatima exposé bi am amna solo torop ah, déglu nañ la attentivement Té vraiment ah, li nga wax fi mom ñun demaguñu mak sax waye ñi ngi xawa am feeling bi xam nga ah na ne nek na xamni euh ma. Euh, man personnellement su ma toogee di xool ñu nekk màkk dama leen di ñeeme dama xaw a am benn euphorie damay xaw a damay xaw a ragal parce que je me dis que nit ñi yëpp naka nga munee def tuuri kaaba bi xam nga nga gisti nit nu ñu bëree ak yooyu yëpp mais ñaari question laa am da nga ne par exemple booy dem màkk préparé wu hmm. financièrement waaw xam nañ cher na mais mun nga lijjanti loolu mais naka la naka la jullit bi di préparé woo moralement ak spirituellement balaa ngay dem màkk parce que comme ni ko waxee foofu place su defarukaay la daal il faut nga toroxlu su ma la déggee di nga waxee lu ma si jëlee mooy il fo nga toroxlu pour nga mun a defarlu mais naka la nit ñi du préparé wu tey soo ma nee soxna xat yi da dem màkk ah, xam naa ni que damay dem màkk kontaan naa mais en même temps naka laa mun a préparé woo moralement xam nga at spirituellement loolu naka la ko jàmbi loolu mooy sama question bu njëkk waaw après ma joxaat la beneen question bi Iya, en iya, attendant iya. eh, di kontaan nañ bu baax a baax a baax mooy wone ne que ne déglu nga exposé bi bu baax jullit bi faj jëm màkka wax nañ ne dafa war a préparé wu spirituellement mooy mm-hmm. jiitu mooy nga waajal sa bopp ci lépp loo xamante ne jaamu yàlla la foofu nga xam ko balaa ngay dem dëgg la waajal sa bopp ci jàng sax alquran bu baax parce que am na ci ujaaj yoo xam ne bu ñu yeggee ba màgg nga ne leen da ngay julli ñaari rakka benn bi fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun benn bi fatiha qul huwallaahu ahad dañ naan la man kat sama doom man de xul yooyu nga may wax xamuma ko muy sàggante bu rëy mm-hmm. ndax nit ki war na fexe ba li nga xamante ne moom moo yeggali cinquième pilier de l'islamam mu xam ci dara war na tamit xam neke ne acc farata bi ñeent la mooy al ihram mhm. tawaaful ifaada assaayu bayna safa wal marwati ak wuquufu bil arafa ñeent yooyu war xam nekk ne lii moom waajib munul ñàkk ci ajam war na xam tamit nekk ne bokk waajibaat yi nekk ne moom bu demee musdalifa Muna dafa war a toog dafay dem arafa dafay dem musdalifa dafay dem jamra loolu yëpp war na ko xam loolu côté loolu yëpp ci côté spirituel bi la mhm. donc diineem war na ko gëstu bu baax a baax a baax lépp lu loo xam ne soxla na ko diine soxla na ko rek ci nit ki mu mu mu mu xam ko war na koo xam donc bu ñu waxee loolu kon bàyyi nañ que ne moom moom sangu set bi nga xam ne moom la war a njëkk a def lu mu war a xam la xam ko bu baax balaa muy dem màkk parce que ci sangu set ngay jiitoo boo sangoo set ba pare si ngay sol sa armal dem bi aali pour que nga yéene mhm. donc lépp loo xamante ne war na koo xam muy côté spirituel bi mu waajal ci bopp balaa moo dem préparé wu moralement aussi parce que comme ni ma ko waxee rek euh, euh, ni nga waxee noonu kaaba gi nit yi pour une première boo demee ba ba dugg rek jàkkarloog kaaba bi jàkkarloog nit ñi noo def sa fitna loolu yàlla moo ko def parce que néeg yàlla la waaye boo duggee ci biir nit ñi dangay ngay fàtte ne nit nga fa parce que yàlla moom moo ko day mel ni yow danga nekk ci sa biir néeg ci biir bi loo sentirati ne yaag nit ñaa fa nekk parce que foofu lii la boo xam ne yemul ak benn lii néeg yàlla la <laughs> xëy

war na war na war na préparer boppam parce que nit ña nga fay fekk comme ni ma ko waxee bokkoo leen foo leen juddoo bokkoo leen foo leen yaroo bokkoo leen foo màggee waaye yéen bokk benn objectif mooy da ngeen wut ci yàlla kon nag warngeen ngeen a mën a ba aj ji jeex comme li li ñu yéen sallam di wax ne yàlla moom sax moo ko ala taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwaani nee na na ngeen dimbalante ci def lu baax te bañ a dimbalante ci noonu boo waajalul sa bopp moralement soo demee mun a ak na mu metti di nga xuloo histoire yàlla wax ne la rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xaj nee na bu leen ñëwee màkka bu leen fi xuloo bu leen fi werante na ngeen jëflante jëflante bu rafet loolu nag il faut que nit ki buy ñëw màkka xam ne dafa bàyyi këram mu ngay dem ci këru yàlla te ci duyuufu raxmaan yi la bokk te ganu yàlla yi nag doon ganu yàlla nag privilège bu mag a mag la mhm. ndax boo demee da ngay xam ne yàlla moo la tànn famille des millions de personnes ci kanam yi kon dafa am noo fa war a demee soxna si loolu laa ci amoon lu may wax ci sa question macha allah léegi audience bi ubbi na bu fekkee ni ki euh, am question nga profito ah laajte Seyda Fatima mu rek waaw mun nga dellu si ñaari point sànq ba tey maa koy déglu mais dama xaw jaxasoo tuuti si if it nag ak tama tama nga tamatu ak wat ak uh, iftraat ak if d'accord mën naa lan mooy lan moo leen uh, waaw mhm. séparé waaw voilà ak tamatu mooy da ngay jëkkee acc soog a umra mm. ifraat mooy bi tane boo jullee ñaari rakka yi ca biiru aali muy zul ureefa def alkaafiruuna fatiha kul huwallaahu ahad boo sëlmalee nga ne fas yéene naa aj yàlla yàlla ko yombalal te nangul ma ko bi nag mooy yow sa armal bi nga sol doo ko si waaye doo tuur danga koy sol nag ba bis bi ngay def tawaaful ifaada mooy bisu tabaski boo defee tawaaful ifaada julli maqaame Ibrahima naan zam-zam daw safaak marwa boobu ci bis boobu noonu dagg sa karaw ci bis boobu noonu ngay soog a simmi sa armal bi waaye loolu ñaala fan la diggante mhm. boobu ñaala fan la diggante boobu ñaata fan la ngay sol benn benn armal bi rek wala mën nga changer armal. xam nga xam nga xam nga sénégalais yi. xam nga nit yi des fois dañuy Médine bu dee da nga fa mhm. teel a jógee di nga yàgg armal mais bu mhm. fekkente ne da nga yéex a jógee Médinatul Munawwara ñëw Màkka. moom bu dee huit jours ba fa ñëw. yow sa mhm. armal doo ci yàgg ndax boo ñëwee rek dangay ngay dem Muna. boo demee Muna boo yeewoo Arafat nga jëm boo jegee Arafat dem Muzdalifa ñëw bisu tabaski def sa tawaaful ifaada julli maqaama Ibrahima naan zam-zam daw Safa ak Marwa dagg sa karaw dellu sa hôtel da ngay simmi arma bi. muy yàgg a mu mel ni ñeenti fan la loolu. ñeenti fan la ñuy def ak moom daal di mm. simmi. waaye ñi nga xamante ne nag dañoo jógee màkka Médine mhm. teel a ñëw màkka def ifraat mën nga def ak sa armal lu ëpp sax lu ëpp sax juróom-benni fan mu ngi depand rek bool bi nga ñëwee parce que Médinatul Munawwara léegi nit ñi duñ fa yàggati danga fay def ay quatre jour cinq jour bu dee premier vol nga ñëwee di fa toog dem màkk di nga fa def lu ëpp peut-être sept jours wala huit jours aj gi soog a tàmbali nga jëm nga jëm nga jëm muna jóge muna jëm arab mhm. donc ku yàgg ak armalam mais ki nga xamante ne dafa yéex a ñëw moom armalam du yàgg ak moom mhm. ñeenti fan rek lay def ak moom du tàqale moom mhm. voilà ki xam ne dafa def tamatu comme ni ma ko soxna ci laaje mom bu yene ci biiru ali dafa nan yalla pas yene na def umra yalla ng yombalal te nangul ma parce que ki def tamatu mo dafa jital umra soga acc waye ki def ki def ifrat day acc ba pare sogu umra donc bu acc mom ba def jamram yi ba pare bu delu ci hotelam ci lay waajaat dem jàkka yaay solaat euh, julliwaat fa ñaari ràkka sol armalam julli fa ñaari ràkka dellu si waat ci kaaba gi tawaafaat ko juróom ñaari yoon muy umra ci moom mu julli maqaama ibrahim naan zanam da marwa daal di wàññi karawam loolu ci lay soogu umra mooy ki nga xamante ne moo def ifraat mais ki def na nag moom ca biiru aali lay yéene ne fas na def umra umra boobu nag tamatu ku ko def moom da ngay simmeeku waaye da ngay rey da tuur deret mooy dangay ngay njëkkee umra soog a aj ki ne day def ifraat bu ñëwee ci kaaba gi moom buy wër kaaba gi moom loolu tawaaful xuduum la ci moom mais kii def tamatu buy wër kaaba gi loolu umra la ci moom wër ko juróom ñaari yoon julli maqama ibrahima daw safa ak marwa mom wañi karawam mu pare umra di delu hotelam simmi armalam mhm. ba bi ñi dem muna mu solat armalam and ak nit ñi dem muna joge fa dem mhm. arafat dalifa mhm. wat daal di tawaafaat. man la sasa wala mapata jele hilas can you guys uh, dimbali ñu si kii bi Fatima am na tata uh, ku ku bëgg ku ku bëgg laajte ku am question bismillah asalaamaaleykum asalaamaaleykum man la Aji Fatou waaleykum asalaam wa rahmatullah Aji a ziar di leen di jërëjëf soxna Fatima sa présentation bi neex na ma lool lool lool lool ah, ah, ci yëfi aji màkk bi yal na la yàlla bindal yiw ak tiyaabo maa ngi ziare mm. ñëpp di ziare sëriñ bi ziare suma doom ju taru ji la ni macha allah I love her so much di nuyu ñëpp ñëpp ñu nekk ci panel bi di ziare suñu sëriñ bi ak soxnaam jërëjëf man li ma bëggoon a laajte mooy ne dina gis nit ñi di dégg suñuy dem Màkka dañuy mm-hmm. jënd seen mbubbi armali like ñeent ñeent mbuba mm-hmm. wala juróom ñu ñawlu ko mm-hmm. waaw nga nekk Màkka nag eh, depend na what kind of aj ngay def waaye gis nañ ne suñ demee delloowaatee ci seen hôtel bi dañuy mm-hmm. change same color because xam nga mm-hmm. they don't have the culture of coughing and covering their mouth dangay mm-hmm. nekk ci kaaba gi sax ñu ñu ñuy saxat ci sa fi ngay ko ne ñu saxat ci you feeling it sa ñëw so you don't want to go back nga put on that same eh, color. boobu dangay dem nga ne nga ko the mm -hmm. Is that mm-hmm. part of the Hajj or is that not part of the Hajj? aji faatu xanaa nga wax ñi dem màkka dañuy jënd eh, mbubbi armal yi wala jurom. pour ne mm-hmm. every change Mm-hmm. Ah, soo demee Màkka nga def sa tawaaf def sa safa marwa nga delluwaat julli ci masama Ibrahima nga delluwaat Màkka nga mm-hmm. change sa kaala bi wala nga change sa mbuba moomu noonu nga soloon because mm-hmm. you feel nit ñi sax saxat na ci sa kaw ba yow danga because Màkka amuñ di culture nit ñi nekk foofu amuñ di culture pour up seen gémmiñ gi suñuy saxat dañuy saxat ba mm-hmm. nga gis ne tuufit baa ngi ci baa ngi ñëw ci sa gannaaw gi because yaa ngi ci mosque bi so you mm-hmm. don't bugguloo dem nga delluwaat nga dem mm-hmm. ci sa hotel nga ñëwaat nga solaat kaala boobu noonu you want to change to a new one is that part of loolu ndax uh, lu ci ci sarit aj bi la ndax loolu bokk Just one one one question. ah. benen question bi mooy ne. léegi Aji Fatou. naam ko mu tontu boba après nga ñëw ci benen bi. ah ok bien jërëjëf. Fatou ma comprendre nga question bi. wa soxna si comprendre na ko. parce que limu wax ñi dem makka dañuy ñawlu ay 5 armes. di ko mm-hmm. yóbbu Màkka bu ñu demee parce que dañuy dem li gën a ëpp ci li muy wax ci sëqat boobu man fi ma ko gën a gis mooy masjidul nabawi et que ñi koy gën a def bari na mooy indonésien yi mm-hmm. euh, mel ni feebaru sëqat dañ koo am mm-hmm. waaw ñoom dañuy sëqat lu bari waaye euh, euh, islam moom diine set la mm-hmm. diine set la te dafa bëgg lépp lu ñuy def rek mu nekk lu set uh-huh. islam bëggul ko lor bëggul ko lor morom waaye eh, eh, comme bërëb la bo xamantane nit ñu bari ño fay euh armal bi man dé su dee ci sama xalaat damay japp ne nit ki bu ñetti armal sax bari na ñett waaw ndax ñett yooyu noonu war na koo mën a yore mhm. aj bi yàggul ba aj bi jeex mhm. parce que Makka comme ni ma ko waxee rek sànq bërëb bu toroxlu la mhm. bërëb bu boo ne la da nga ñëw rek ne yàlla maa ngi nii sa jaam baa ngi nii voilà donc bi euh, changer yére lu bari xëy na gënul am na ci ñoo xam ne eh, dañu dañu seexlu dañu dañu uh-huh. seexlu torop uh-huh. voilà donc lu laal rek dañuy bëgg a dem yére uh-huh. mais li doon gën mooy que ne yére bi nga xamante ne moom nga yor ñetti armal man na bi nga ajeeg moom ba aj bi jeex parce que bërëb bu toroxlu la du bërëb bu ñuy dem di sol di simmi voilà loolu daal la bu may wax waye luñ ci mën wax rek moy islam mom diine ju set la te dafa bëgg lu set tamit voilà jaxna jaxna jaxna benen question bi moy ne yaangi ne um, dégg la bérébu toroxalu la waye su fekke ne nit ki ni la ni nga démé màkka daf nit ñi ni ñuy démé màkka dafa utee di nga mm-hmm. gis ni dañuy am invitation of the the, the king mm-hmm. Wow, nga bokk ci groupe googu noonu nga xam king bi moo leen invite waaw yéen ngeen jógee Jidda hélicoptère mm-hmm. xeeti hélicoptère moo leen a yóbbu Medina Wow, ngeen egga Medina everything is preserved for you prepared for you ngeen a dem di julli ji ca rawlu yonent bi ngeen a def nekk sallallahu alayhi wa hmm. ngeen am e, e, e, lifin xus koo xam ne moo leen a wallu nekk hmm. pare ngeen dem Mina mostly nit ñi nekk suñ demee Mina ci tent hmm. lañ di nekk di nga gis àddina si ci tent tent tent waaye ñi nga xam ne host guest hmm. guest king bi la ñoom they hmm. are in a kind of hotel mm-hmm. ñoom duñ nekk ci tent mm-hmm. te te holy eh, the custodian of the two mosque ñoo invite parce que yow dangay am baaj bi mm-hmm. ndax loolu ba tey yow nekkuloo ci tent bi te ñile la invite hmm. am nga aj ndax amulo aj because you will go to uh, hmm. li li nit ñi di def yépp di nga ko def pare di nga dem what is it called uh, uh, fi nga xam ne soo fa demut eggut rek amulo aj arafat arafat di nga dem arafat ñu def yépp nga def yépp hmm. waaye difference bi mooy it's it's totally different because yow doo nekk ci tent bi daal mm-hmm. waaw li ma ndax am nga aj mm-hmm. because tase mm-hmm. tase tase naa fa waarekat yu bëri yi jóge Sénégal gis gis naa leen foofu noonu dangay jóg ngeen jóg ngeen ji seen néeg bi every time ñu ngi leen a indil breakfast waaye ñale ci tent lañ nekk ndax loolu dafa ne amuloo aj ndax am nga aj loolu moom am nga aj ndax innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mhm. yàlla moo mhm. bind ay jaamam te mhm. yemaloo ku ci nekk yàlla am na fum la teg dañ ne buur ñi nga xamante ne ay buur lañu la leen di wooyee muluk yi ak ru rais yi ñi nga xamante ne ruacha ñi nga xamante ne ñoom ay njiitu réew lañ mm-hmm. ñooñu yàlla dafa jël ci nguuram dénk leen allah akbar allah akbar am traitement bu différent ak ñun mm-hmm. ñi nga xamante ne mm-hmm. eh, xëy na nekkuñu ci statut boobu ñu nekk noonu parce que mooy séddale loolu moom terewul nit mu am aj ah waaw yàlla moo la tànn noonu ne noonu ngay ajee alha kubar dama doon wax suma borom ke privilège borom defal la li nga mi yàlla defal loolu mooy gën koo sant eh waaw moo taxit maa ngi sant rek waaw ba tey ba moom ngëneel moom moo ko yore te moom moo koy jox waay jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na la yàlla bindal yiw jërëjëf ay sa xam neex na jërëjëf waay doomee naa la waay ma ne ko ma ne ko def <laughs> <laughs> naa la doom def doom booba bébi maay bébi Mm. jërëjëf jërëjëf kontaan naa lool kontaan naa. jërëjëf jërëjëf. ana soxna Seck wallaay wallaay jërëjëf ana Mado nuyu leen ma ko waaye soxna Mado. baax na na ko dégg tata dina am si yoon bi keneen ku am question si euh, euh, mun nga poser question euh, su ko defee Seyda Fatima répondre la ligne bi ubbi na ku am question rek mun nga yëkkati sa loxo après nga poser sa question. sama xarit yi dafa mel ni. Uh-huh. am mbokk mu bëgg a leerlu fii tuuti. ma uh-huh. ma question bi wala. waa indi ko indi bisimilah. wa waaw kay jërëjëf sama xarit yi. Euh, Adja Fatima. Euh, ah. dafa dafa mbokk bi leerlu lu jëm ci wàllu aj gi. Euh, ci ni nga dafa mel ne aj gi lépp ci dëkku màkk la ci màkk rek Mm-hmm. wante Madina dafay laajte ndax ci aj gila bokk wala dem fay dem bañ fay dem dañuy dem rek ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa pour ubbeeku euh, wante bokkul ci aj gi ak lu tax euh, mu gis mbokk yi nga xam ne dañuy dëkke booru lu mel ni senegal wala ñuy dëkke lu mel ni Gambie bu ñu demee Medina bu ñu ajee dem ci Medinatul mhm. Rasul euh, toog fa euh, juróom-ñetti fan bala ñuy dem màkk loolu daal la bëggoon a leer lu waral toog bi Medina wala ndax Medina ci la bokk wala aj ji ci biir dëkku màkk rek la euh, feneen bokk ci ci bi comprendre ma ko Euh, ma dé ma dellu si waat yaa may dégg yaa may dégg bu baax ah. Euh. mbokk mi dafay leerlu euh, ndax aj mm-hmm. dem bi ñuy dem Madina mm-hmm. Madinatu Rasul ndax ci aj gira bokk wala ku fa demul ndax sa aj mm-hmm. baax na loolu mooy pour mu gën a simple question bu njëkk bi ñaareelu question bi tamit mooy dafa gis ni ñun ñi dëkkee booru senegal ak gambi dañuy mm-hmm. faral bu ñu ajee dañuy njëkkee Medina ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem dafa juróom-ñetti mm-hmm. fan jëm fam ñeent fukki mm-hmm. julli ndoolu dafa bokk ci aj wala ñun ñoo ko def rek pour pour dolli suñu tuyaaba tabaarakallaahu question yi am na solo lool ndax nit ñi ci Sénégal sax dangay ngay dégg nit yi bu ñuy dem Màkka dañuy كولين يو واخني ماغي ديم ديفي سما 5 بيليه دي الاسلام دا نان ماغي ديم زياره دي يونت بي الله عليه وسلم اي كا لولو دامي واخني ايرور لا باسكو زياره يونت بي صلى الله عليه وسلم دنج كوي ديف ناخ ورما بونيو ام تي سيدنا محمد jot ci lamuy muy dang koy teyel domam naxal ko ko bu pare may ci may la ci lamuy muy ko bëgg ci cere jaboot da nga nan dom ji yangu tawara soga dem makkatal mukarrama parce que yalla moom bo soxla ci mom dara il faut nga jaar ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam. ñuy wax ne ben julli bo fa julli fay nek mil prières ci yow donc mm-hmm. loolu yow dafay yokk sa yiw dina la raxas ci senegal mën nga fi di faat julli wala nga koy yéex def léegi yow prière yooyu ngay am 40 prières yi fa amee tabarakallahu mën ngaa wax ne sax yow raxasu nga set nga donc euh, ñi nga xamantane dañu dañu dañuy wax rek ne ne ñoo ngi dem euh, ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu noonu ziyaar la waaye aj gi du foofu aj ga ma nga tàmbalee ba nga armale julli ñaari ràkka yéene yéene ba fa nga ko defee foofu la aj ba parce que dañ ne la aj yi la mooy nga mooy mooy mooy mooy mooy nga def tawaaful ifaada sax yu bay na marwati ak wuquufu arafa yooyu mooy nekk loo xamante ne farata la te yaa ngi koy tàmbalee ci bi nga demee biiru aali julli fa ñaari rakk yéene fa nga yéene fa aj bi tàmbalee may la nga def ci kullu ziyaar la nga def ci ziyaare sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nga def ci julli ko ci jumaawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay prière loola yépp dañuy wax nekk ne danga ko def pour yokk sa yiw mais bokkul ci aj bokkul ci aj bokk si aj d'accord aj gi yëpp màkk la aj bi màkk parce que mhm. euh, euh, yàlla moom daf ne al ajju arafa <laughs> waaw ñu wax la ne la aj bi ngay armal ngay armal mhm. ak taxaw ngay taxaw arafa ak daw bi ngay daw daw bi ngay daw safa marwa ak mhm. tawaaful ifaada bi loolu mooy farata ci yow kon kay loolu yëpp màkk nga koy amee Mm. mais xanaa loolu symbole la xanaa symbole la daw boobu lu waral daw bi pourquoi pourquoi ñuy daw comme ça xanaa lu muy lu xewoon foofu ñu bëgg ko dellu soir mu dafay jikko ci jigéen ñi. loolu moom question bu ma sa war a tontu. sama mm-hmm. dama yaakaar ni a nekk la bu dee di dox ndànk yore sa kurus di kii yooyu di sellal mais na di kër waaw góor ñi buñ fay daw jigéen hmm. ñi dañuy daagu ci teem hmm. parce foofu yàlla dafa teralee jigéen hmm. jigéen dafa sonnoon démb yàlla teralee ko safa ak marwa muy maam hajara moom mi nga xamante ne mooy soxnaay maam ibrahima alayhi am doomam maam Ibrahima jël maam Hajara ñëw andi ko foofu ci àll màkk ba boobu dara amu fa hmm. bàyyi ko ci diggante montagne yi mu nekk fa moom kese ak doomam bu ñuy wax Ismaila alayhi salaam hmm. bu juddoo moom foofu ndox amu fa woon hmm. maam Hajara da doon jaabante bayna safa wal marwati montagne bi su ci jant bi tàppee day reflété mel ni ndox su dawee fii mu mel ni ndox bu yeggee du fa fekk dara mu delluwaat fële marwa bu yeggee du fa fekk dara muy jaabante daw googu mu doon daw ci diggante bu fi doomam tëddoon maam Ismaila fa la yàlla génnee ndoxu zam-zam mu ball zam-zam làkk la dalal dalal dalal mm-hmm. moom maam xaajara moo doon wax ndox mi dalal dalal dalal ku ndox mi bañ a lor doomam ji mu tëral foofu ci expérience boobu mu dund muy mam xaajara mm-hmm. moo tax yàlla nekk ne képp ku dem màkka mm-hmm. sa aj mat nga daw bayna safa wal marwati waaye jigéen ñi comme daw bu njëkk ba yàlla dafa ne ñun nañ daagu waaye góor ñi moom bu ñu yeggee ci lampe bu verte ba dañuy dañuy daw waaw parce que coono bi moom ñoom ñoo ko mujjee <laughs> dañuy nopp sawa rek la waaw mais soxna soxna Fatima góor ñi bu ñuy armal. waaw. Mm-hmm. dama gis dama gis ñuy génne seen benn mbagg muy feeñ wane doole seen kattan te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leen bi aj bu am na euh, romb na juróom fukki at yi. Mm-hmm. léegi noo armale noo noo armale rek baax na wala am na nu la islam wax ni nii nga war a yow miy góor nii nga war a solo yow miy jigéen tam nii nga war a solo maanaam li nga war a sore bi wala jigéen moom waaw moom mën naa sol yére bu ko neex waaye na jot mm-hmm. te bu mu feeñal moom melokaanam bu mu bu mu bu mu bu ci yaramam bu mu xat bu mu yaraax waaye yére bu mu sol mu jot mën na koo aje waaye góor ñaari serviette ñaari morceau la waaw dañ ne fépp góor mën na fa sol beneen yére waaye ca mhm. makka karama mhm. waajib ci góor ki mu woddu jël beneen ba laxas ko dal di bàyyi benn loxoom parce que sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Oh, xam naa noonu karaw tiit nañ te bi ñu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw boobu ak âge mu amoon daw noonu wane kiyam kattanam vraiment loolu tam beneen symbole la ci islam daal ni ko jullit du nga war a ñëw noonu rek daal. doon woon rek ne. Mhm. Euh, tawaadu la leen doon woon. mooy wàccee sa ndax yàlla wax na sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wa rahmatulah. لو كنت فزا خليس القلب لن فدو من حولك نينا كو سوفيك كنت انا وداغا نيكو كو خات خول نيكو كو جافي نيكو كو نقري ديريت كون دون لا وور وي بو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وي فون موتاخ مو منونا جيف لانتك جامو يالا ييب واو ا آه، موتاخ يالا ميسيون دوكو تك سي لوخو نيت كو ري tawaadoo yàlla bis boo wàcc rek yàlla moo lay yëkkatil boppam mm-hmm. Mm-hmm. waaw tabaarakallah jërëjëf i daa Fatima li ma la bëggoon laaj mooy par exemple boo demee màkk première fois nga gis kaaba bi lan mooy doon lan lay def si yow ban impression ngay am pour la première fois nga dem màkk ba gis kaaba gi lan ngay lan ngay lan mooy émotion bi daal lan ngay sentir loolu de moom ni arab di wax ihsaasiyat xawi yi mooy yëg-yëg boo xamante ne c'est inexplicable mënoo ko sax mhm. expliquer parce euh, doon dégg rek kaaba gi kaaba gi kaaba gi hmm. kaaba gi euh, hisiyan mooy loo xamante ne lu ñuy xool euh, ay birig la yu ñu teg def ko muy kaaba waaye maanawiyan néegu yàlla la mhm. ñuy wax ne que ne bu dee yàlla am na toogu moom toogoo manga nga tiim kaaba gi mu ne mu toog ci kursi yu mooy yàlla dafa toog ci siisam ci digg kaaba gi nit ñi di ko wër yëg-yëg bi ngay am mooy boo xoolee kaaba gi pour la première fois noo def sa fit dafa naan tëf ñoo mhm. ci dara te même bu doon da nga dellu une deuxième fois. Mhm. Mhm. parce que kaaba gi moo toll noonu. Euh, moo tax ñu ne soo nee premier premier vue nga gis kaaba da wax lu gën a gaaw ne yàlla lépp lu ma fi ñaan yàlla ko nangu. Mhm. mooy ñaan bu gën a gaaw bi premier vue. lépp lu ma fi ñaan pour bañ a lenn parce que nee nañ la njëkk a wax moom loolu moom yàlla da koy def hmm. waaw donc bërëb la boo xam ne yemul ak fenn yemul ak lenn yàlla yóbbu yàlla ñu fa yàlla yóbbu ñu ah <laughs> oh. incha allah ya allah ku am question soxna na euh, euh, Fatima taa ngi nii nga nga laajte sa question li occasion la parce que moom si loolu lay yëngu donc euh, xam naa ne ñu bari bëgg nañoo dem màkk sama compagnie gi xaw nañoo ragal nag waaye ah li occasion la <laughs> pour ngeen. Euh, ah, soxna xarit dafa mel ni naa leen Xadi maa ngi leen di ziar bu baax. di ziar suñu gan gi soxna Fatimata euh, di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu Ahmed si di ko ziar bu baax. xadi waxtaan mi neex na trop trop trop sax ah, macha allah yàlla nañu yàlla defal sutura daal ba ñu dem <laughs> ziyaare ci yonent amiin yaa <laughs> rabbi ñu def suñu uh, wareef ah. yaa rabbi waxtaan bi rafet na trop waxtaan bi leer na trop soxna si ñu ngi lay jërëjëfal bu baax mais man dama amoon question bu ma doon bëgg laaj rek euh, pour nga rappeler ñu ko euh, mm-hmm. ci ci préparation bi waaw parce que dañuy dañuy gis ñoo xam ni am nga kii war a dem màkk dafa war a fay ay bor warul jël ay bor warul am bor daal te damay gis ñoo xam ni dañuy dañuy lepp di dem màkk so mm-hmm. ma bëggoon nga dugg foofu tuuti comme foofu loolu moo war a jiitu sax que mm. loolu moo war a jiitu balaa ñuy mm. am xaalis biti dem so nga ma bëggoon nga rek dugg ci tuuti explique kii ñu ci ba ñu ci tuuti incha allah waaw euh, kontaan lool ci question bi maa ngi lay jaajëfal yow itam waaw loolu nga wax noonu lu am la nit yi am na ci ñoo xamante ne dañuy leb di dem màkk waaye dem leb di dem màkk nag kon dégguñu man istataa ilayhi sabila mooy ku ko mën ku ko mën du rek mën ko mën ko physiquement wala nga mën koo spirituellement wala nga préparer wu moralement financièrement dafa war a fekk nga am loo yor parce que màkk li mu laaj dafa bari mooy que ne yow booy dem màkk sa kër gi ngay bàyyi war nga leen a bàyyee lu ñu dundee ba ñëw du ñu wuti leen fenn sa ginnaaw mm. yow mii dem soo demee war ngaa yor loo xamante ne dina la doy doo fa nekk di wax naan sama xaalis réer na dimbale leen ma wala sama xaalis dafa jeex dimbale leen ma di ko yore ba ñibbisi doo loru te doo lor ñi nga nekkal donc ci condition yooyu moo tax yàlla wax ne man istataa ilayhi sabila yàlla tegul kenn lu mu mënul yàlla lépp lum ñu sant rek dafa ne buñ ko mënee te aj benn yoon la nekk farata ci nit ki mhm. te farata boobu moment bu muy nekk yow ci yow farata mooy bis ba nga ko mënee mais boo ko munul nekkatul farata donc di leb moom pour dem màkka man dama jàpp ne loolu moom euh, ñàkk a dégg rek manistata ilayhi sabilan la waaye ku dégg li yàlla wax ne ku ko mën kon soxlawul leb pour dem màkka da ngay xaar ba yàlla may la loo demee nga dem màkka dem defi sa cinquième pilier de l'islam jërëjëf waaw soo amee bor nag bu fekkee ni par exemple man tey jii ma toog rek jeewo may ma bii te maa ngi am ay bor parce que ba tey mun naa dem waaw loolu xam nga dañ naan euh, boo amee bor bi mhm. nga yoral bor danga war a wax ak ñoom ne leen man kat dañ ma may bii te dama bëgg a dem màkk du man ma jël sama xaalis pour dem dañ ma koo may bor yi ma leen yoral nag fas yéene naa koo fay bu ma ñibbisee su ma ñibbisiwul tamit samay njaboot gii dinañ leen ko fay mm. loolu war na am seen diggante mm. balaa ngay dem mag suñ la ko nangulee nga dem buñ la waxee ne danga may fay nag balaa ngaa dem moom danga leen a war a fay balaa jërëjëf si leeral bi waaw di dem màkk après ngay dem màkk ñi nga yorel bor après ñoom ñu toog rek dégg ne dem nga màkk mais soo waxee ak ñoom mm-hmm. loolu te comme nit ki nga dem banque ba nga def fa prêt bor la waaw mm-hmm. bor la banque ba def fa yow banque boobu noonu lii différence bi ak nit ki mooy assurance moo ñëwulee assurance mooy fay waaye ki nga leb moom te yéen ñaar la kooku danga dem war a wax ko ne ko man kat dañ maa may bii te fas yéene naa dem màkk ndax ding ma nangul ma dem màkk ba ñëw fay la su ma ñëwulee sama njaboot dinañ la fay loolu oh. moom ngeen war wax tënku ko bu boobaa boo demee màkka sa aj gi dina baax dara du ci nekk waa soxna Fatima est-ce que kon loolu moo danga ne booy dem màkk danga war a pare financièrement te dañu gis ni par exemple nit ñi bu ñuy dem màkk tout le temps foog ñu yëg foog ñu yëgal la ko léegi ñu jox la ndaw ta naka lañ koy waxee dimbali la kon kon dimbal boobu si loolu la loolu looloo tax nit ñi di dimbali nit ñi bu ñuy dem màkk wala mm. bu fekkee ni amuloo doole dañ la may biyee waaw léegi waaw dafa am ci dafa am ci dafa am ci jaamu yàlla yi ñoo xamante ne xëy na. ñenn ñi uh-huh. bu ñuy dem màkk sax yëg. waaye am na ci ñoo xamante bu ñuy dem màkk dinañ tàggoo am santu na nga nga tàggoo. Uh-huh. mais tàggoo bu ñuy tàggoo dafa am dafa am loo xamante ne moo ci laxasu am na ñoo xam ne dañuy tàggoo pour nga jox leen dara. waaye uh-huh. am na ñoo xam ne dañ lay pour baalul àq. Ah, ndax ak mhm. te bu ñu demee ñu ngay dem màkk te xamuñu ndax daañ del seen déet dëkk la ndax màkk dañ maa ngay dem mais xamoo ndax di nga ñëwam déet comme xamoo sa ñëw nga jéggalu nit ñi baalu leen àq balaa ngay dem moo li gën moo tax ñenn ñu bari di tàggoo mais am na ci ñoo xam ne dañu bokk ay mbootaay mbootaay yi ku ci dem màkk dañ lay dajaleel xaalis daal di lay jox yooyu ñoo euh, loolu moo gën a waral seen tàggoo yi parce que dañ koo def ci seen biir comme natt boo xamante ne nga ne damay bokk natt bi natt bi nattu aj la loolu tamit lu sew la te nit ñi duñ ci bàyyi xel mm. parce que bu ñu defee natt nit ki man ma ñëw ñu teggil ma mm. may dem màkka ñi nga xam ne ñoo jël seen xaalis dañu war a jàpp ne man su dee man dem naa te dellu siwuma kat ñun ñëpp ñu nattoon may nañ ko suñu xaalis mais su fekkente ne dellu si na dafay continuer natt bi mu fay wala bu dellu siwul ay mbokkam ñooy natt natt bi yooyu yëpp dafa war a leer nañ ñi balaa nit kay dem parce al mawtu yati baxtatan dee dafay bette dëgg la kel xam-xam kañ la fan la naka la macha allah ku am question ku am question mën nga euh, dafa mel ni soxna Ami Touré mu ngi am question uh-huh. bismillah soxna soxna Ami uh-huh. salaam soxna Ami rahmatullah rahmatullah maa ngi nuyu mboolem ñuy déglu am di nuyu Seigne Ahmed si di nuyu soxna ma jigéen ak mboolem ko xamne yaa ci programme bu interesting bii ni mm-hmm. waaye man suma question bi mooy man at yu indi 90s laa dem demoon maaka waaye groupe gi ma àndaloon maa ci gënoon a nekk xalal Hello? Iya, ya, why Why um ام ام سهنا سيسي Mangla ام um, di la wax ne programme bi am um, neex na torop te mm-hmm. man na ci lu bari ma am ñaari questions rek parce que man bima dem it was in the mm-hmm. night fekk maa ngi nekkoon halal? te ma mm-hmm. realize right now ci yow li nga wax ni am na yu mm-hmm. bari yoo xam ne ni ñu yóbbu woon fo naa ne mm-hmm. defee erreur defee wuñ ko noonu defee wuñ ko noonu yoon ci li nga wax right now nii so maa doon laajte ndax dama war aji wat o because there are three mistakes yoo xam ne xam naa yow wax mm-hmm. na waaye ñun suñ time loolu defuñ ko mm-hmm. so maa doon laajte ndax aj boobu jàppana ndax jàppul mm-hmm. da soo ko munee defaat dinga ko defaat boobu question number one question number two mooy biñ demee Mina first xaanu Jamra bi ñëpp defoon nañ ko waaye sa ëllëg sa mu amoon ñoo xam ne dañ xam dañ tayaloon ñu foroon seen ay xeer man am na ñu ma joxoon seen ay xeer ne ma soo mm-hmm. demee nga sànniwaaleel ma mm-hmm. maay laajte ndax loolu loolu war na ndax warul man jëloon mm-hmm. naa xeer yooyu noonu dem rek sànni waaye xaw ma woon <laughs> lu ma parce que jox nañ ma ko rek ne ñoom defoon nañ ci seen fas yi fas nañ ci seen ne jox ma ko pour ma sànni leen waaw mm-hmm. muy muy ñaari question yi ni laa bëggoon nga leeralal ma eh, soxna fatima xam naa balaa ngay tontu rek dañuy ak soxna ami Touré si laaj bu jëkk bi mu laajte eh, ñetti things yooyu nga xamante ne moom la wax eh, ne moom la ñu defoon si aj bi yooyu il faut que mu leeral ko pour nga mën ko tontu incha allah su question bu jëkk bi waaw mooy ñetti façon yi aci hmm. fi nga defee sa fase ene pour def ida tamato o hmm. ak o beneen bi nga njëkka wax bi nga xam ne danga njëkka umra hmm. ac o nga ac ba pare umra am na ci boo xam ne danga wara rendi xar danga wara rey xar léegi dañu waxoon ne foofu setaluñu ko parce que ñun dañ fogoon ne soo defee tamato bi moo gënoon a yomba parce que euh, man man pour man maa ngi fogoon ne dama am armal bi pour sol ko continuously every day every day every day maa ngi jëloon fogoon mm-hmm. ne booden man parce que maa ngi bëggoon a sol yu set so mm-hmm. ma décide doon pour def tamato bi rey xar bi waaye mm-hmm. ñoom xaalis bi dañ ko jëloon si suñ loxo mm-hmm. waaye ci li ma understand mooy soo dem da ngeen war a rey xar bi min na oo soo ndax xaalis boobu ñu jëloon xaalis waaw xaalis yi dañ dañu wax ne ñu jox leen xaalis boo xam dafa dafa warona a that time lu nekk njëgi har. bi so ñu joxe woon ko joxe woon nañ ko I think there was a mistake somewhere mooy leeraluñ ñu ndax mm-hmm. de na Uh umra Wow. loolu remember ma loolu dañ war a umra o dañ war Wow, wow, c'est que bu dee tamatu ngeen def moom umra ngeen i njëkkee soog oh, a acc soxna fatima waaw léegi xam naa foog nga leerala leen parce que kese bi ñëw na ñaar bu ñetti yoon foog ñu wax leen tamattu mooy lan ci wolof ifraat mooy lan ci wolof su ko defee bu ñu xamee wolof bi seen understanding ci réponse yi dina gën a yomb incha allah waaye waaye li ma gën a xam mooy su fekkee ne yow foog nga ne def nga aj bi foog nga ne def def def nga ni nga ko defee correct ndax soo ko mm-hmm. amee bugg a ajaat ndax mu nga ko mu nga ajaat ndax aj bi nga defoon rek aj jàppana waa léegi yow su dee am nga possibilité bu fekkente ne yow manaasikul aj xam nga aj dafa am ñeenti yoo xamante ne moom munu cee ñàkk mooy armal gi ngay armal mooy yéene bi ak taxaw gi ngay taxaw arafa ak daw bi ngay daw bayna safaawal marwati ak wër gi ngay wër kaaba gi bisu tabaski muy tawaaful ifaada ñeent yooyu boo ko defee nanga am yaakaar ne sa aj bi baax na waaye dañ ne su fekkente ne am na ci yoo xamante ne defoo ko danga war a def kafaara kafaara yii mën nga da ngay woor yële da ngay saraxe waaye lu ci mënta am mooy soo demee ba mu wóor la nekk ne lenn lu bari defoo ko ci acc te yàlla may la moyen pour nga defaat ko nga dem màkka nga defaat ko comme ni mu waree loolu mooy li gën a dal xel waaw waaye remember naa li nga wax ni yëpp def nañ ko waaye lima xalaat rek mooy ne weda njëkka njëkka def umra bi and then def aj bi waaw I thought there was some mistake there waaye suma second question bi waaw um, waaye al inbox you pour ma gën laa mun explainal mu gën a leer xëy na voilà léegi man gën a leer li mooy que ne dafa am ifraat am tamatu mm-hmm. ifraat moom mooy acc acc mooy acc boo dama bëgg a def ifraat mooy dama bëgg a acc aj ba pare soog a def umra mooy mm-hmm. sa bi boo ko solee boo jullee ñaari rakka ca euh, biiru aali yéene acc sa armal bi do ko simmi ludul bisu tabaski ba mais do tour deret ifra defé do to tour deret waye sa armal bi da ngay ak mom bu bisu tabaski ba mais hmm. tour nak mom umra ngay njëkkee umra nak sunna la aj bi farata la umra sunna la da ngay farata do ko def sunna fii nii da ngay sunna soo ko def farata mooy que ne boo solee sa armal dem bi bi ruwaali julli fa ñaari ràkk yéene def umra boo defee sa umra ba pare foofu noonu boo demee sa hôtel da ngay simmi sa yére ba nga soloon simmi ko ba bis bi nga xamante ne si la aj bi di tàmbali nga sol sa yére aj maak mooy nga sol sa armal daal di ànd ak nit ñi dem Muna jógee fa dem Arafa jógee fa dem Muzdalifa jógee fa dem Jamra jógee fa ñëw tawaaf Kaaba gi julli maqaama Ibrahima naan zam-zam daw Safa ak Marwa yow dagg ci sa yow moomu ci waxtu woowu si sa aj di jeex li des rek mooy nga dem yeggali say jamra mais kii def ifraat nag moom pareegul parce que bu defee loolu ba pare dafay dem solaat sanguwaat set solaat armalam dem jàkka yaay Aïcha yéene fa daal di ñëwaat doogu umra loolu mooy seen différence li nga wax ne dañ leen di laaj xaalis pour ngeen joxe ko pour xar yi ñëpp loolu lañ leen di wax parce que xar mi duñ duñ la ko bàyyi yow nga rey ko am na fuñ koy reyee mooy xar yooyu nga xamante ne moom la ñuy yóbbu yenn dëkk yi di ko may xar yi nit ñi rey màkka la pour sa xel mën dal tabarakallah machallah wa legi suma second question bi moy ndax mu nga sanil nit ay nit sen xeer yi jamra wa lolu mën na ki ko xamantani xeyna dafa dafa dafa dafa dafa ñak katan té lolu tamit da gis na nit yu bari du ko def dara nekku ci mais li gën gën moy nit ki defal ko bopam loolu moo tax ñu wax ne que ne da nga war a préparer wu physiquement. Mhm. Hmm. parce que physiquement bi foofu lay dellu si. parce que kuy dem màkka da nga war a am kàttan pour mën a def say farata def say sunna ba mu mat. waaw ki yóbbante pour ñu sànnil ko kooku préparation physiquement moom préparé wu voilà. waaw baax na jërëjëf jërëjëf. <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah. salaam. waaleykum salaam. maa mhm. ngi nuyu di leen ziar leen baal wax di leen ko baal. si maa ngi delluwaat tuuti rek ci ci ay euh, façon aj boobu nga nga expliqué léegi. te mhm. yow da ngay da yóbbu ay nit ñu ànd ak yow ngeen def euh, ngeen aj. léegi naka la nit ki di di di di préparé woo daf nit ki da nga leen di ñu tànn ban la ñu bëgg a def wala da ngay proposé. wala fay am li nga xamne dal mom la la sénégalais yi gambien di faral di def ko defé parce que bu da nga am groupe dama bëgg xam naka naka nga koy doxalee dal ndax ñi dañuy jaar ni ñi jaar ni wala ñëpp ñoy dañuy waxtaan ba jiboo ñëpp no def ben waaw man suma yoron groupe bo xamantene dama wara and ak ñom ñu dem makka ci sénégal gi laa leen di laajee ban façon at lañu bëgg a def balaa ñuy dem ba màkk parce que euh, loolu tamit nit ki da ko war a xam waajal ko donc mooy côté spirituel am war na xam moom déjà man ifraat lay def wala su ma demee tamatu lay def groupe boobu nga yor noonu Sénégal li ci ëpp li ëpp ci ujaaj yuy jege Sénégal ifraat lañuy ñuy gën a def benn benn nga ci gis ñu def tamatu ku la nit ki waxee ne que ne man kat damaa bëgg a def tamatu nga ne ko tamatu lii ak lii ak lii lay def ifraat lii ak lii ak lii lay def mu xam ko balaa muy jóge Sénégal loolu mooy waajtaayu spirituellement nga xam ne bu yeggee moom bu demee biir waali julli ñaari ràkka ya du taxaw di la laajaat yow ne man sax ban aj laay def xam na ko balaa muy jóge fii waaw bu dee fàttali rek xëy na nga fàttali leen ko ne ko fa zakkir inna zikra tanfaul muminin répété leen ko ndax la répétition est pédagogique waaw macha allah macha allah baax na jërëjëf ah jërëjëf vraiment kontaan nañu bu ñu fàtte suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi si YouTube bi ah, soxna Ndeye Fofana dafay mm-hmm. laajte. si mm-hmm. ah, YouTube bi lañ nekk ñu am ñaari question benn bu njëkk mm-hmm. bi muy laajte fan la yonent bi sang bu tedd bi tëdd ndax Medina la nekk wala Màkka dafa woon a xam loolu beneen bi beneen mbokki bi mu ngi laajte mu soxna yi bu fekkee lañ dem ba Màkka. yàlla def lu muy def mu gis eh, soxna si gis mbaaxam ndax mhm. loolu lan lay nan lay taxawaay bi ndax ba tey dina am aj yooyu daal mooy question yi fi wàccee si youtube bi eh, donc soxna Fatima ñu delloo wala kontaan nañ bu baax eh, bi ci njëkk mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam nga tëdd madinatul munawwara mhm. loolu moo waral nit ñi di fa jaaree ziar ko balaa ñu yegg màkkatal mukarrama ndax bi ko ay mbokkam sonalee ca màkkatal mukarrama waa madinatul munawwara ñoo ko accueillir dalal ko fa la toog ba ni mu génnee àdduna kon moom ma nga madinatul munawwara mhm. waaw baax nag tabaarakallaahu question boo xamante ne la bu ma kontaan lool la mhm. parce que loolu ay ay jigéen waaye dañuy jigéen ji bu gisee baax mel na ni que ne mu nekk Medinatul Munawwara aj bi mi ngi tàmbale moom euh, dafa war a sangu gis na baax dé na sangu sangu yaramam ba mu set mu sol armalam julli la dul def parce que ku gis mbaax doo julli mm-hmm. doo dugg ci biir jàkka ya ñu ne waaye bi sallallahu alayhi wa da doon ànd ak ay soxnaam ñuy dem ci aj am ñu ci gis mbaax mu ne leen lépp leneen lu ñuy def mën ngeen ko def waaye doo leen julli te doo leen tawaaf kaaba gi ndax hmm. kaaba gi moom mook laal alquran ñoo yem laa yamassuhu ilal mutahharin ku setul du ko laal mu ne ko boo fa toogee sax nag sa fan yooyu yëpp yi nga fa nekk ci aj gi nga toog ba aj gi jeex di nga dem fépp di nga dem Arafat di nga dem Musdalifa di nga dem Jamra waaye tawaaf kaaba gi rek nga dul des parce que julli woo tawaaf hmm. kaaba googu boo ko defulee ba aj gi jeex itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daloon dalay wax ne la kenn gënu laa ëpp aj ndax yàlla moo la ko teg la ko teg moom nangul na la sa aj waaw nit yi nak jigen ñi li ci ëpp bu ñuy dem makka dañuy wut ay comprimé di ko naan pour bañ gis seen règle lolu bu fekkentane du la lor islam bañu ko waye bu dé day créer ay conséquences mom mom ñak ko def mu gën parce que même bo tawaful kaaba gi di nga am di nga am yool yoolu acc waaw masha allah Assalamu alaikum. rahmatulah. Oh, salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax si guddi àjjuma bi. di leen déwénati si atu julli gu bi bii. yal na yàlla may ñu fekk kay at yu bëree bëri di jiital si ndeyu bi ziar beeg ndokkale bi yëpp sëriñ si dax sax na ma jigéen si fekk ak équipe bi yëpp macha allah. ah di rafetlu waxtaan bi fi mu ne nii tey moom ñit demagul màkk sax bëgg nañu dem màkk. waaw ndax fi mu ne ay leer rek fi bal waaw ay tiyaabak yiw rek li ñuy dégg moom macha allah waaw ku bëggul woon dem tey xool yëpp dem nañu ñi demul yàlla nañu dem ñi demoon yi tamit yàlla na yàlla def ñu dol delluwaat rek ndax du doy mhm. ah dama am ay lu lu may dégg toujours dañ koy wax ñu ne euh, soxna soxna si Fatoumata si kii Cissé ñu ngi lay nuyu di la ziar maa ngi leen di ah, xam-xam bi waaw te li nga fi jëf wax yëpp yàlla dugg ci nopp yi bu duggee ci nopp yi yàlla nañ ko jëfe te bu ñu jëfee yàlla na borom bi nangu si barke Seydul Wujud sallallahu alayhi wa sallam a ah, kontaan nañu lool macha allah donc euh, li ma doon wax damay toujours ku jël daga daan yàlla na ma yàlla nangu sama aj waaw baat boobu ku nekk loolu ngay ñaan yàlla yàlla na yàlla nangu aj te defe naa ku dem ba màkkatal mu karam li mm-hmm. nga doon ñaan mooy yàlla nangu la ndax si ponk yi la bokk si boo ko mënee mm-hmm. léegi dama mm-hmm. remarquer man donc mm-hmm. xaw man nag mais fi ci États-Unis bari na ku nga xam ne dina dem mak su ñun suñu bokku jigéen ni dañuy dem mak buñu ñu mak wër lañuy def di di di di di mouru di def yëpp mais buñu ci joggé rek commencé nañu tek greffage yi commencé nañu sol yu yu dang yi commencé nañu sol yëpp légui loolu dama bëggoon xam l'islam lu mu wax ci loolu benn ñaar li ma bëggoon wax mooy mandarga bi nga xam ne euh, aj bu nangu li muy def si ki jóge màkk loolu yëpp bu fekkee lislaam indil nañu ko pour ñu bàyyi ci xel ndax euh, rëccu tuub dabaatal la erreur du wees wala xëy na ñàkk xam wala nga demee période bu nga xam ne lu bari matul woon waaye nag euh, pour rek daal ñu tegaat suñu tànk fi nga xam ne foofu la ko suñu borom sant ñu mu bañ a nekk tourisme mu nekk ponk loolu daal laa <laughs> bëggoon soxna Faatumata bintu Rasul nga leeroon ñu ko jërëjëf <laughs> salaamaaleykum wa rahmatulah <laughs> macha allah loolu laa doon wax rek deka ne mooy sama dernier point bi ma doon waxtaanee mooy ban asaar ban jeexit la aj war a am ci nit ki bu jógee màkk uh-huh. boo jógee màkk dafa war a jeexital ci yow dafa war a jeexital ci sa comportement jeexital ci sa habillement surtout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 قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يلا مو وخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيكو وخال سي سخنا ak say njaboot ñu jotal yére yi sol kon loolu dafa jiitu sax yoonu màkk waaye bu ñu demee ba jógee màkka bokk na ci jeexit yi ñuy xamee ne nit kii kat moom ajam bi am na lu mu def ci moom parce que mm-hmm. dañ ne al hajjul mabruur laysa lahu jazaa ilal janna aj bu nangu amul benn fay lu dul ajjana ajjana mm-hmm. nag moom nit ki ci ba ngay dund yow fi nga nekkee ci àdduna di nga xam boo wéetee di nga xam sa bopp ndax yaa ngi ci yoon wala nekkoo ca mm-hmm. ndax yàlla moom li mu santaane dafa leer nañ ñi kon ku jógee màkka war nga mën a góorgóorlu ba lépp loo def loo xamante ne islam da koo tere nga mën koo bàyyi bu fekkente ne nag yow euh, ñooñu noonu dañu préparé wul seen bopp moralement parce que boo préparé sa bopp moralement di nga xam ne kat man maa ngay dem màkk kat. Mhm. su ñëwee ñu dang yooyu loolu ma mën a solati maa ngay dem màkk su ma ñëwee greffage bi du ma ko mën a solati maa ngay dem màkk su ma ñëwee ay body du ma ko mën a sol donc préparé psychologiquement mooy parce que loolu mooy def taaru jigéen taaru jigéen mooy mu jotal li nga xamante ne moom lay sol asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Maam heure eh, bi ndax nañu de ah, waaw sëñ euh, ñu ñaan benn benn min rek xam naa ne heure bi uh-huh. dab nañu uh-huh. euh, mel na euh, ñu jàllal yóbbante sëriñ bi uh-huh. gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen di sant soxna Fatima bu baax a baax mhm. eh, di ko sant si turu sëriñ bi ak mbooloo mi yëpp di ko ñaanal yàlla si taxawaayam ak eh, xam-xamam ak waxtaan bi itamit ni mu ko andee wax dëgg yàlla leer na si wàll yëpp macha allah eh, mu mel ne comme ni ngeen xam muy programme yi nga xam ne sëriñ ñu nekkoon fan yëpp muy programme juma ji nga xamee ne ñu ngi ko doon toppatoo boobu ba léegi yàlla defoon sutura ba nga xamante ne eh, jot nañu caabi yi eh, muy altine ba le passé sëriñ bi signé na kayit yi yëpp yëkki caabi jox ko comité d' ba ITFA ñu amee ko wax ko mbooloo wax nañ leen ko semaine bële si rajo bi wax nañ leen ko fépp ne jot nañ si caabi yi te sëriñ baa ngi leen di ñaanal di ñaanal mbooloo mi yëpp fépp fu ñu mën muy góor muy jigéen képp koo xam ne sa dërëm dem na ci ak koo xam amul nga yéene sax def si te yàlla dogal ko sëriñ bi ne mu ngi bokk di ñaanal ñëpp ñëpp yàlla yàlla dolli leen yàlla yàlla wéral leen yàlla yàlla guddal seeni fan ba ci kaw yooyu ngeen gis noonu nekkate ñun dañ yaakaar ne rek ñun mbokk taalibe yi ñun ñooy am ko def si waaye sëriñ bi bàyyi ko ñun ñun ñëpp gis ngeen ne moo ñu jiitu si joxe bi te moo ñu si man mm-hmm. loolu la yàlla dogal waaye ñun tamit mbooloo mi ñu ànd dellu ñaanal ko yàlla moom yàlla wéral ko yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi yàlla sàmm ko yàlla a ak musal ko muccal ko bi jaay si ñi di wujul waaye bi si gën a neex sëñ Mamour mooy euh, keroog si àjjuma sëriñ bi daf ñu woo euh, waa comité d'organisation bi ne xalifa bi yebale na fi yónnee na si si moom yónni sëñ Babacar Ndaw mu andil ko خالص بو خامني موي بارتيسيپاسيون خليفه بي مو جيم سي جوماجي ما شاء الله وا موي كور اجوما بابا كان داو دغ يالا وا خو ديم با سي سيرين بي يكتي 5000 دولار تك سي لو خامني خليفه بي مولا كو جوخ موي كو مول نيكو جابالي سي ليغي بي ا سيرين بي تيميت بيكسي بيك ميك ميك ميك مو اب واخ نيكو ني نيم ني اند ني بيكسي مو واخ ني واخ دغ يالا خليفه بي كات تغو نيكو وون لي موم اي نيانام دونغ ak ay kàddoom yu rafet dong yi mu ñu doon gunge loolu day ni ñu sëkk waaye nag bu ko booleeg yëkkati alal ju nu toll jox ko Ndaw mu andi ko teg si ah moom it kontaan na si waaye tam ñun comité d' organisation bi kontaan nañ si bu baax waaw xam naa ne babu Babacar Ndaw waroon na fi nekk sax tey pour jàllal message boobu waaye ñu wuutu ko si rek wuutu wax ko ne ko ñun comité d'organisation bi jot nañu ci xaalis bi sëriñ bi jox nañu ko mu ngi ak ñun te waa comité d'organisation bi insha allah danañu bind benn décharge ñaan sëriñ bi jox ko ko mu kaseteel ñu ko ñu jox ko sëriñ Babacar Ndaw mu yóbbu ko si xalifi bi wax ko naka jot nañu xaalis bi te kontaan nañ ci waaw te li tax ñu gën ci kontaan nag dafa jóge sur ki xam ne moom mooy suñu xalif général ñun ñëpp mu nekk lu rëy si ñun kon nag yàlla na ko yàlla wéral yàlla na ko yàlla sàmm yal nak yàlla iir yal nak yàlla aar waaye sëriñ bi nee na itamit moom mu ngi wuutu mboolem njabootu maam Seydil Haaji Malik yëpp di wax jërëjëf xalifa bi mu ngi wuutu mboolem njabootu maam Seydil Haaji Malik yëpp di leen di ñaan yàlla xalifa bi pour yàlla wéral ko yàlla guddal fanam yàlla gën ko sàmm yàlla gën ko iir gën ko aar bi jaay Seydi Wujud wa Alimi Shuhud ne luñ ci mën wax itamit lii sëriñ bi wax yëpp mën ko répété bu nu ko mënoon ñu def ko xam dañuy jéggalu rek di baalu si yi manqué waaye daal sëriñ bi kontaan na mboolo mi kontaan nañu waa ITFA kontaan nañu ñu ngi wax xalifa bi jërëjëf ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax sëñ Mamour loolu lañu di koy andi allah wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu الله أكبر الله Allah محمد رسول ñoo ko gisandoo jërëgeen jëf vraiment image yi am na solo euh, vraiment Seydina Seyda Fatima Cissé euh, ñu ngi lay gërëm di la sant euh, gërëm bu amul ab vraiment si performance présentation bi ñu fi def ñu ngi jot si caar room dañu am benn caar mu fi nekk mais nit ñi kontaan nañ ñu ngi lay ñaanal di la vraiment macha allah macha allah macha allah mention exceptionnelle Euh, programme bi nag daf fekk ne encore sax la waroon a yem mais euh, dañ ko xaw a externe am naa lu ñuy def mooy lii lu ñuy lu ñuy dafay amat dafay am beneen boo xamante ni dañ koy defaat pour que vraiment ñu ñu ñu ñu ñu may nit ñi question yi bëri na lool am na ñoo xam ne sax jotu ñu jàllale seen i question pour te montrer encore une fois euh, topic bi nga nga doon laal tey vraiment dafa intéressé nit ñi te it fa nag lii rek moo tax a jóg ñu lay gërëm di la sant gërëm bu amul àpp te xam allah dañu fexé ba dal ba nga delsi fi su ko defé nit ñi mën a yeggali seen kii xam naa ñu jox la nga euh, ba la ñu tasaaru. waaw kay man itam kontaan naa bu baax baax baax ci dalal bi ngeen ñu dalal kontaan bu baax ci question yi parce que euh, aj moom ñun dañ koo bëgg waaw bëgg bu ko bëgg xëy buñ koy wax day mel ñu ngi koy dundu waaw te dañuy bëgg saa suñ koy wax ñi nga xamante ne ñoo koy dégg itam ñu koy dundandoo ak ñun euh, xëy na loolu mooy mooy mooy tax mu neex bu baax ci ñun euh, may may may jàllale waale benn message rek boo xamante ne euh, dama am association bu tudd ahbabu rasul taha alayhi salaam fii ci Sénégal ñun ñoo ko initié moom association bi suñu objectif moy daara yi concept bi moy un talibé un kamel dañuy dajalé kamel yi euh, dañu dem wut partenaire partenaire bi ñu wut librairie la bo xamantene moy librairie l'islam nit yi dañuy jënd kamel par Orange Money wala Wave ñu defal leen facture sen tour ak sen sante sen numéro téléphone def entre parenthèse ahbabu rasul taha ñu euh, euh, defal leen facture jël kaamel yi téyel ñu ko premier euh, collecte bi ñu njëkk def amoon nañu ci librairie ba quatre cent cinquante kaamel ñu may ñu don cent quinze kaamel ñu yóbbu maatam yóbbu nañ ci daara ji yóbbu nañ fa deux cent quatre vingt kaamil yóbbu nañu ci suñu papa mbay si njool fuuta deux cent kaamil te dañoo nar a continuer noonu ndax daara yi ci Sénégal yépp la concerné ñuy ñaan képp koo xamante ne daal am nga kaamel boo booy joxe ñun pare nañ pour jël ko yóbbu ko ci daara yi pour que taalibe yi jot ci maa ngi sant ñëpp di di di gërëm ñëpp di wax ne que ne kontaan naa man itam bu baax a baax ci dalal bi ma bi ngeen ma dalal ñu ngi delloo tamit di sant suñu sëriñ mooy Sidi Ahmed si ibnu mam Habib si ibnu Seydi Aji Malik ñuy ñaan borom bi subhanahu wa mu guddal fanam may ko wér defal ñu ko defal ko xadara bi yépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa may gërëm tamit samay waajur bu baax a baax di gërëm sama nijaay bi nga xamante ne moom ma yar may ñaan yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko ak njabootam bàyyi fi njaboot bi yépp sutura ak xéewal lépp yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhna Ahmad Tijani Cherif radiyallahu taala anhu jërë ngeen jërëjëf merci beaucoup kon ñu dellu ba Washington Seattle soxna Khady xol yëpp sedd na xanaa mu dellu si waat rek sax Seyda ah, di nga dellu si waat parce que question yi jeexul vraiment merci trop sant ah di gërëm ñëpp jërëjëf merci beaucoup jërëjëf soxna Khady waaw la béyka laajal nga soxna si ko bëgg a ci kaamil yi nu muy def waaw dëgg la kañ très bonne question waaw est ce que mën nga joxe sa numéro de téléphone comme ça ñu si bëgg a barkeelu barkeelu si ah waaw léegi kaamel yi man man mi ko jiite damay bañ jël xaalis bi mu jaar ci man dañoo wut partenaire tudd librairie l'islam ñoom seen numéro naa leen ko jox voilà te dinaa leen yónnee flyers bi su fekkente ne am na kenn yónnee naa ko sax asan Euh, numéro yëpp mhm. donc ku yónnee ak Orange Money numéro Orange Money bi ngay yónnee ku yónnee ak Wave numéro Tigo bi ngay yónnee ñoom suñ ko jotee dañ la defal facture ci sa tur yow mi ko yónnee def ci payé non livré euh, mhm. euh, man la ñuy yónnee waat facture bi ma yónnee ko borom ki nga xam ne moo jënd remercier ko donc mi ngi noonu ah, donc jërëjëf jërëjëf encore une fois ba ñoom buñ ko jotee rek ñun dinañ jot kaameel yi inshallah mhm. Mhm. all right then everybody ñu ngi leen di gërëm di leen sant wax dëgg yàlla eh, importance ki bi moo tax mu àgg fii sax mhm. donc ñu ngi leen di wax eh, dox ci dire ba ëllëg inshallah programme bi same link same time si zoom bi ñu def xaltul juma ànd seen mbokki taalibe yëpp di leen gërëm di leen sant di leen wax good night السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرين الجفو عند التامو بنين تامو سي الغاديو إتفا islamique tijaniya foundation of America rajo fa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo fa yamu ci dafay wéyale ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo fa mi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo fa daal rajo bu woo tey leeral